mais c'est parce que une vision xam nga tey boy booy wax culture c'est le soubassement du développement acteur culturel yëpp bu ñu àndut ak yow bu yóbboo na nga lem say kaakate dem parce que tay ñom dañu waroon a am agenda culturel bu dëgër agenda culturel bo xamné dañ koy accepter dañ koy amender accepter ko mais bo démé ba acteur culturel yi di ñaxtu cela signifie que li ngay def mëno ko tegoo ko ci yoon légui nak dafa amay nit yoo xam ne ñooñu lañ privilégié mënuñu woowuñu les vrais acteurs moo tax ñuy kaas te ñun ku fi kaas ñun ñu dimbali la parce que askan wee loof ak san wee son donc vous les acteurs culturels jël leen la ngeen moom parce que vous êtes prévu dans le budget dans la nomenclature budgétaire bokk ngeen ci kon bañ leen ba tëdd si suuf c'est pertinent doomu géejawaay juddoo géejawaay dëkk géejawaay wala nga am histoire ak géejawaay amna ñoo xam ne juddoo une une histoire avec Guédiawaay dama ni ñoo ñoo wara a jóg ki ah d'accord am ngeen maire djégané bu djégané bu joggé feulé ñew mais nak la ca dess na ngeen ci jog bagn ba teud ci souf il faut refuser l'arbitraire il faut refuser d'être des marionnettes il faut refuser d'être des suivistes il faut être debout pour dire non parce que Guédiawaay nak suñu Guédiawaaya dama ni xam nga ñi di top di dal dafa melni ne mbottu mbooyoo la mbottu mboyo xaar ko ca taatu ndala yag yag yàgg dinañ ñëwaat ci yeen di leen laaj seeni baat ngeen lank ba ut ku leen lànkale parce que nag on a découvert léegi nag gis ngeen fal ngeen fi ay maires yoo xam ne jamais ils sont prêts hein. mais vos maire la Aliou Sall amul jotu géejawaay délégation de pouvoir la def jox ko benn transhumant moom mooy buum mooy buum ba pare nag waa APR di ko bëgg a rëy transhumant la ñuy bañ a gis kon boog fu ngeen jëm jarul transhumé beneen bi mooy y a un autre maire Racine tala jamais présent wa RTS nee na musuta tok RTS wa Géejawaay ñu ne musuta toog Géejawaay wa avis de recherche wa jooju fa mu ne les gens ne savent pas où est-ce qu'ils sont ils n'ont pas le temps de Guédiawaye ils ont le temps de voyager et d'être dans autre chose que je veux pas nommer kon bok nañu jog suñu Guédiawaye momal ko suñu bok ligéyal ko suñu bop tey amna problème bu reuy bu nekk Guédiawaye te kenn waxu Malibu mais yeen Malibu lu fa xaw doyna na waar na askan wi nee nañu ñun duñu dem sangu ji Malibu da nga di caaxaan rek Malibu vous avez une obligation d'assurer la sécurité des fils de Guédiawaye Vous leen ay pexe yu xale épanouir fii filles. leen ay maîtres nageurs conscientiser la population mais vous ne pouvez pas empêcher la jeunesse de Guédiawaye d'être à Malibu la jeunesse de Guédiawaye de traverser Des gens am nañu arrêté pour xam ne dañuy génnee ñay jaay yépp loolu du delloo ginnaaw réew ñi nga xam ne foofu de ñuy liggéeyee di daan seen kay encourager l'emploi. faites de sorte que les jeunes ne se noient pas

Guédiawaye Info vous êtes magnifique je le dis objectivement parce que nous ngi leen di seetaan man li tout simplement continuer cette ligue parce que vous êtes objectif vous faites un excellent travail et vous êtes des jeunes de valeur incorruptible vous faites votre travail nous sommes ngi leen di on bokk ngeen vous êtes des élites le média bii nous avons lire nous ngi suivre nous faisons contacter je suis surpris de voir que c'est vous parce que média médias ils sont corrompus vous vous faites un excellent travail continuez comme ça avec dextérité sans parti pris Ciao,